mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaante ak mbégte comme ni ñu leen koy defalee saa su ne ñu ngi fii ci Pikine bu ñu leen waxee nag ñu ngi ci Pikine euh, am na point de presse boo xamante ni staffu Ama Baldé ñoo ko woote woon waaye ba ñu ñëwee fekk nañ suñu nattangoo yi nga xamante ne ak xat-xatu jamono yi jot na ki waaye am na ñu fi fekk euh, fekk nañ fi suñu papa Zil euh, Balde mu ngi fi fekk nañ fi staff bi yëpp bu ko defee dañuy dugg nuyoo nuyu ñi nga xamante ni suñuy kilifa lañ. su ko defee ñu la leen kilifa gi maa ngi lay siyaar bu baax mbaa yéen a ngi am jàmm dafay am waaj mbaa yéen am jàmm père Zil wala papa maa ngi lay siyaar de mbaa yaa ngi am jàmm papa Zil de boole ko père Zil bu ne la père yaa ngi église ah, <laughs> dëgg la kay mbaa yaa ngi am jàmm yaa ngi am tawfiq bu baax alhamdulilah xaaral ma ci wàllu wee ñëw kilifa gi maa ngi lay siyaar naka ma yaa ngi jàmm kilifa ziar nan de mbaa yéen am jàmm tawféex kilifa yi maa ngi ziar alhamdulilah mbaa yéen a ngi ci jàmm baax alhamdulilah Père Jules Père noo def euh, kilifa gi maa ngi lay nuyu waaw ñu ngi lay fay sëñ bi euh, nga baal ma fàttali ma tur bi tuuti ndax fii ma la fekk ci Pikine ngeen bokk ci kilifa Ama Baldé euh, noo tudd waaw maa ngi lab tur bi waaw jégal ma rek frère laa ci Ama grand frère am la euh, démb gis nga li jotoon xew ci signature bi mu waroon dajeeg Modou gis ngeen la ca jot am yëpp euh, ban gis-gis nga ci am. gis-gis bi daal comme ni ko ñëpp gisee la. Hmm. grand bi expliqué na leen ko sànq. Hmm. dañoo convoqué à hmm. waroon jàkkaarloog Modou Lo à vingt et une fexe nañ daal ba respecté ñun suñu kàddu lu ñu digle ak promoteur. ak nombre de personnes yu muy jox. defe naa vingt boobu. fekk nañu biir salle d'attente seen TV. toog nañ vingt ba vingt trois heures gisuñu suñu adversaire. Hmm. li ko teree ñëw c'est son problème concerné wuñu ñun bu ñuy génn seen TV vingt trois heures jot na bu ñuy ñibbi la gis cortège u Lo di ñëw. te lenn dafa am grave wax na ko sànq. Ama Baldé ak Modou Lo ñaari doomu Sénégal lañu. dëgg la. ak ku mënti jël ndam li. Hmm. génnul Sénégal. ñun dañuy ñaan yàlla may ñu ndam li. Hmm. mais du génn Sénégal. Hmm. kon nañ tollole nañ yemale. daa ngi may amul démb. non xam la bu wax la bu baaxul de damay junj rek peut être junj jo doy na borom xel. yaa ngi may ci kaw loolu. bu ma la ne yemal amul rek yemale amul. te yenn communicateur traditionnel xaw ma journaliste lañu xaw ma. toog nañ seen TV ñëpp dégg Xaadim Samb. Hmm. ne Eumeu Sène eh, astafurlah ma lu mu tuddati Modou Lo ngi ci biir. Hmm. Ama Baldé ngi ci biir. Hmm. kon nekk ñu woon ci biir ndax man moom néew woon ci biir. sëñ bi bu ci biir bu Modou Lo newoon ci biir Ama ne ci biir lan moo tere seen signature bi am eh, jàkkaarloo bi am. nee nañ sécurité. ñun bu ñu jox ba ñun ba ñu def ba dugg ñun ñoom mënuñu woon def noonu ba Modou dugg. waaw parce que dañu ne mbooloo mi ci biti jégg na dayo mhm. te bu signature bi amee ñaar ñi wax mhm. mun naa jur leneen loo xamante ni bugguñu ko woon ci làmb mbooloo mi ci biti jéggi na dayo mm. mais ci kaw jéggi dayo boobu la ñu fexe ama dugg de te dara dalu ko en tant que sécurité mais ama ñi ko dugal ñoo àndoon moom ñi ko dugal ñoo àndoon ak moom ci heure buñ ko convoqué mbooloo moo fa gis waaw Ama Baldé njëkk ñëw mhm. te bi mu ñëwee mbooloo mi mu àndal pur mu wàcc dugg ci biir du am signature bi ci biir la woon wala ci biti ci biir ñun Ama bu muy dugg sax. Hmm. il a fallu des minutes. dëgg la pour mu mën a dugg. Hmm. te sagam ñooñu la àndal ñu def loolu. comprendre nga. Hmm. mais fexe nañ mu dugg. mais Modou Lo bu muy dugg ñoo ngi image bu muy ñëw moom seen TV. journaliste yéen dañ leen dégager pour mu dugg. te ñun pourtant journaliste yaa ngi fa woon xat xatloo boobu la ñu fexe ba mu dugg lan moo tax mun ñoo dégager journaliste yëpp dugg na fu muy dugg duggul boo ngeen amee image bu mu duggee won leen ma ko je mets tout le monde au défi nañ bay naafeq peut être kàddu gi mën na ëpp mm. su ñuy wax ñun xam nañ fu ñuy waxee mm. on n'est pas des innocents mm. peut être yàlla defal nañu benn affaire boo xamante ni gis nga fexeel da ngay fexeel ki nga xamante ne ëppoo ko ay mbokk et eh, yaa ko ëpp ay mbokk di moins yii nii du jàll avec nous ak écurie Pikine Falaye Balde ak Ama Balde je te le du jàll yow da nga gis ni dañ leen pëtëxal yi non fexeel mënuñu ko xalaatuñ ko tolluwuñ ñu fii booy fexel ne laal da ngay fexel ki nga mën a fexel ki nga ëpp mbokk ngay fexel du matin au soir lu ñu waaj ak lu ñuy def xam nañ ko te seen biir lay jóge wax baaxul sëñ bi. gis nañ tollool dañ yemale Khadim Samb na bàyyi lu muy wax Modou Lo n'était pas à la Sen TV locaux Sen TV je mets tout le monde au défi journaliste bu mu mënti doon ko am image bu mu gisee Modou Lo biir locaux Sen TV na ma ko woon ñëpp la mettre o défi yenn journalistes yi ak ñëpp ñi fa newoon de vingt heures à vingt trois fu ñu gis Modou Lo biir seen TV nañ ma indil image yi je mets tout le monde au défi amul. mais jàkkaarloo ñaar nit koy def papa. mais ku ragal a ñëw ñëw ba rond po Yoff taxaw fa. dafa deux heures de temps yor sa téléphone ñu la koy jox leeral te leeral TV di nga koy seetaan en direct. lu la teree ñëw yaa ko xam ñu bañ a ñëw signature na mën nañ ko conseillé mais combat bi munoo bañ a ñëw. te dina ñëw ci làmb ja. lenn mën na ma bañ a bett man man su ma tëddoon nelaw yeew ñu ne Modou Lo delloo na avance su sëñ bi du lu ma gis lu ñëpp gis la moom laa gis moom nga gis moom la keneen gis. ah man kay gisuma loolu da ngeen a jàpp ni da ngeen ko yan lu mu attanul. fexeel ma bañ la boole si ji jàng. gis nga ko gis naa ko keneen gis nga ko. ku naa fexul gis nga lool man man gisuma dara man moom fi mu toll nii laaj laay féetewoo. sëñ bi boo laajee ñu tontu la ba mu saf saf. waaw maanaam delloo avance bi dafa dafa rëy ci. ñemewul booy bi. ba nga dégg-dégg. Hmm. juróom ñaari Modou Lo Ama Baldé moo leen mën. muy clair. kon fi mu toll nii seen prochaine daje nan ngeen koy waajee. bu nangoo ñëw ak nu muy demee. bu nangoo ñëw. Uh-huh. c'est son problème man li ma doon ñaan promoteur bi sax bu fekkee ni mën na nekk. waaw kon ñu Modou Lo boobu xaw ma interdit la xaw ma. am na benn bayaal bu fa nekk man nañ fa organiser face à face te ñun dinañ ñëw. déedéet ëpp naa def. waaye na ma lay bañ a wax biir kër sëñ Modou Lo sax nga naan ma ay ëpp naa def. <laughs> ëpp naa def nga wax de Pikine nga dugg de papa. biir parcelle suñu fa woon jaakaarloo wallahi azim Ama Baldé dana ñëw toog dana jaakaarloo dana ñibbisi dara du ko laal sañ-sañ boobu am nañ ko gan si na dugg si bëree bu daw jaakaarloo ay mboromam la doon téye ay mboco mboco la doon jàpp yaa may dégg di leen pëtaxal di leen teg xel di leen jéem a daxa jaxaseeg euh, monde di leen jéem a jaxaseeg askanu làmb mm. yooyu taxawul ça ne passera pas avec nous du jàll mais ban message ngay lancé ñi nga xamante ne ñoo ànd ak Modou Lo ak xale yi nga xamante ne ñoo ànd ak Ama Baldé ndax sànq wax nga ko kuñ ci mun a am ndam ndam li génn Sénégal ban message nga leen di lancer. su ma amee message bu may lancer. Uh-huh. ñi ma concerné laa koy lancer. mooy ñan mooy waa Pikine. ban message message bi leen di lancer mooy la ma leen woon avant ñoo dem rek ñun avant lii dañu waajal. Hmm. ñun dañu def débriefing avant ñuy dem. Hmm. woo suñuy ndaw wax ak ñoom ci xel. Hmm. te samay interview yu bari bu ngeen ko seetee boo duggee si site yi di nga ko dégg. discipline la ñu woote te discipline boobu won nañ ko ba mu mat sëkk. encadré nañ suñ mbër yóbbu nañ ko fan ñu convoqué dugg na dara xosiwu ko récupéré nañ ko indiwaat nañ ko dara dalu ko kon ñoo ngi sant waa Pikine ci mobilisation boobu xale yi amuñu seen fay yaa ngi dégg démb boo fi ñëw da nga yaakaar ni jouru làmb la dañ namm mbër comprendre nga lañ leen dénkoon yëpp delloo si nañ ñu ko mais kanta ay xajamal ay yàq der ay sos nañ bàyyi yooyu je mets Khadim Gadiaga au défi caméra laa jàkkaarloo yow Khadim Gadiaga boo amee image boo xamante ni gis nga benn supporteru Ama Balde bu yor une pierre xeer xeer wan ma kii bi image mu munoo nekk rond point Yoff mhm. xam lu xew si seen TV. ah dañoo miine ay arme si ay tali ku seen TV xanaa xam nga fa yow. suuf gan la wala ay ay karo ay mutu tali karol loo fay miine ay arme bay seen ragal ji. danaa la san passera pas Pikine lañ dugg xam nga luñ seq ak ñoom. Mhm. bëre combat récupérer suñ couronne indiwaat ko Pikine mais à part ça leneen lu ñu nar tey tey seey fi ñu tugg baaxul. man amul lu wax. ma lay jaajëfal bu baax a baax a baax léegi wax loo xamante ni. wax loo ko mos a gaañ lu ma doon lool li rek parce que bon lu mënta ñàkk rek mënta ñàkk parce lu mënta ñàkk mooy ñëw bëre si. te ñu ngi wax promoteur benn affaire ñu ngi lancé appel promoteur bi 2019 la ñu signé bi si diggante bi li fi xew gis nañ ko mbas mi ak yooyu ñuy ñaan yàlla yàlla jëlee ko fi mais ñu ngi koy lancé défi combat bi na fexe mu bañ a génn saison bi. parce que amaa amul jot toog xaar rek Modou di toog xaar benn mbër rek naan contrat moo la lié ak benn promoteur deux ans ngir benn mbër jëmale at bu yàlla xamul wax dëgg yàlla ren moom bëre rek sëgg bëre rek lekk na avance lekk nañ avance su ko mënul na ko delloo ñu seetal ñu beneen adversaire loolu dafa mel ni li muy dal Ama Baldé dafa bari parce que gis nañ ci contrat moom ak ak Papa bi daanaka def na lu mat quatre ans yoo xamante ni benn combat la ci bëri bii combat tamit diggante mu Modou Lo defaat na bientôt léegi mu def deux ans yoo ni amul est-ce yéen a ngi waajal bu baax di sóoraale carrière xale lépp loo gis si àdduna hmm. voie bu la suñ borom tracel moom ngay topp Ama Baldé du promoteur athlète la te bu xësee signé contrat tënku na tolof tolof yi am si côté promoteur wala côté événementiel ak yu demee noonu du doon si coobaram mais Ama bu sañoon chaque dimanche mu bëri Ama du préparé combat Ama dafa pare kon retard yi du lu ñu gënal mais boo seqee gor mbir am lu ko téye da ngay ànd ak moom ba lépp teex mais promoteur bi ñoo ngi koy ñaan combat bi na bañ a génn saison bi soit gan gi ñëw ñu bëri. su ko mënoon mu delloo ko avance avance bu ñu yor ñun nañu utal beneen promoteur ama amatul jot toog di xaar Modou jëmale déwén pour muy leer xew démb nag yaakaar naa ñun ñëpp ñoo tegandoo suñu bët ci face à face bu waroon dox ci diggante Modou Lo ak Ama Baldé ngeen gis ni nga xamante ne noonu demee ñoom nag waa kër Falaye Baldé xëy na dañuy ànd ay leeral parce que dañu jël ay baaraamu tuuma joxoñ leen violence bi nga xamante ni naroon na faa am démb ñoom ñoo ko naroon andi moo tax ñu ñëw nag seen xalaat ci loolu moom dañu nuyu ki nga xamante ni moo yor seen maanaam moo yor seen kàddu yu Vieux ko bàyyi ko mu nuyu mbokk internet yëpp ñu waxtaan ak moom ci loolu. comme Olof Ndiaye nee na weddi tuuma taxaw da ragal seetal sa der la maa ngi lay nuyu bi. waaw ñu ngi lay fay la ñu ngi lay fay di mbokk internet yëpp di ziar ñëpp di baalu àq ñëpp di baalu àq ñëpp di ñëpp tamit nag ko dëgg yàlla. Hmm. Hmm. comme ni ma ko waxee rek démb dafa am na xew seen TV ngeen waroon jàkkaarloo ak Modou Lo. Hmm. jàkkaarloo ba mujjul am. xëy na mën na am gisuñu fa violence bu doy waar sax. Mhm. mais mën na am mën na ci am. Mhm. yéen ci joxoñ baaraamu tuuma. Mhm. lan moo fa ah, yow yaa ngi foon nag gis naa ne ñu maa yow toogul balaa dara dañuy nuyu mbokk pikinois yëpp ñun Pikine lañu am Pikine mooy lépp képp ku juddoo Pikine rek di fi ne fi ñu lay nuyu bu baax a baax a baax a baax Lamine ñun dañ ñëwoo si benn face à face nañu convocation bi vingt heures la. début face a face bi vingt une heures la ñun à ama ñëw na ànd ak écurie ñëw vingt heures dugg na ci lu koy tontu xaar mais yow yaa ngi fa maa ngi fa yow dama fa gis violence ndax yow gis nga fa violence. wax rek yow man xam nga. non cest à xam maa ñoo fa nekk woon. waaw d'accord mais man est-ce que violence yow. xam nga man tontu question du sax du wax bu wane si SAF ama wala écurie ama violence. ku am ku am image rek ñun na ñëw mën ñu ko loolu amul xam nga qu'est-ce qui s'est passé mm-hmm. Ama Mbër la champion la suy génn du génn moom seul dafa am ñu koy topp moom sax soo xoolee ci au cours de am na ay ñoo xamante ne ci ci ci yoonam lañ jëlee duggee ci côté bi dem loolu ñun mënuñ ci dara mm-hmm. ba ñu demee lépp lu règlement bi ñu joxoon respecté nañ ko xam lu ma règlement bi mm-hmm. Ama ak quatre personnes ñoo ñoo dugg Ama la ñëw vingt am Ama ñëw na vingt heures quatre personnes respecté na ko Ibou Faye la woon baaxum Jules Balde Ama Balde ñooñu la woon buñ si biir toll nañ fa ba vingt deux heures trente man ma woo na ko Jules il est vingt deux heures trente est ce que duñ ñibbi ndax ne ma noonu nañ bàyyi ba vingt trois heures parce que tamit respect ak Luc Nicolas ni bàyyi vingt trois heures vingt trois heures mun duñu xaar ñu dem lu tax mun ñu xaar mooy que ni mun ñu comprendre tey li fi nekk service d'autre nekk fi si ay gémi nekk ay barrières pousse nit ñi ay fest ay deux cent trois cent xam nga Lamine la may wax ji Modou ma bëggoon ñëw nga nit soo jëlee avancé te ñeme woo ko da nga koy wax mais bu dul ay alibi démb gars yi bay dem ñoom sincère lu rafet xeeñ lu neex sol ay seen costume yu rafet ñëw toog ànd ak yar ak teggin ci biti amul benn doom aadama bu wax ni violence amul na fa man si la ma jaaxal violence yi am ñaari nit mais kan ma fa gis supporter Modou Lo man gis ma supporter Modou kenn ko fi gis naa fi daal ni ñu ngi laa fa gis ci ku nekk ci Modou mais gis kenn ku taq ci Modou Lo ku nekkoon ci biti xeex cee am day am ñaari ñaari ñaari camp ñooy xeex si violence si feeñ day fekk ci mu nekk ñaari camp mais benn camp kese kese nan la mën a defee violence. am daam yoo xamante ne sax su ko nit di wax yow mi nga xam ne nga am sa xel di raisonné ba xam ne li wax ni yéenul maanaam ñun du ñu wax kenn ci violence ndax Ama Baldé nit ku am yar la nit ku dal la nit ku am teggin la famille noonu ñu ni ànd ak moom noonu fii responsable rek fi toog. am na ñoo xamante ni nekkuñu ci ay violence très sincèrement. waaw mais lan moo tax ful bu toll noonu tamit topp ko dëgg la moom kese mënul dem mais lan moo tax mbooloo bu toll noonu yëpp topp ko te mu leer ni leen bu ngeen ñëwee du ngeen dugg ci biir ci biir télé bi. xam nga naa loolu nee naa la Ama mooy mbër bi gën a populaire ci Sénégal benn ñu ko bëgg dafa bari ñun mënuñu ñëpp yor moto ba taal oto def ci essence am dugg ci côté bi dina ko génnal amuñu sax pouvoir boobu amuñu boobu parce que problème bi mooy. yàlla moo ko may loolu nga nit lu ko yàlla may da def ngeen hmm. hmm. hmm. appel boobu noonu tamit yaakaar naa. non dafa nag kon kon déglu ma de appel dañoo woo appel seen télé seetaan waxuñu appel dañ ne nit ñi jàpp seen Ama Baldé danaa fees dara face nga gis ci àdduna yëpp nag qu'on se dise la vérité mbër mi mënul ànd loolu mënul nekk nga nekk waxal li mën ne waaw mais loolu tamit dañ mais dañ loolu dañu war a fexe mu nekk tamit mbër war na mën a déplacé wu te mhm. Ama Baldé war a mën a déplacé wu mhm. dem ba Zik FM mhm. ànd ak quatre personnes moo loo jógee parcelle dem ba Zik Sen TV ànd ak quatre personnes loolu tamit dañu yow démb yow démb yow démb jeunes yi fa nekkoon ak gendarmerie su fekkee amay fi leen fi leen yóbbu ci oto ama ci ginnaaw leen yóbbu bu dee dafa leer naa ñu bi di ñëw amuma benn ordre am foon yéen a fa nekkoon parce que kenn mënul dugg ama ñu ne dugg ci calmement te foofu ëpp nit moo di ba mu fay ba mu waaj a ñëw foofu kenn new fa moo kan moo fa ne nañ ay béykat pour supporter oto Ama ba ci ginnaaw supporter ñoo wër oto Ama pour pour ma sécuriser ko mu loolu la ma ko tëree ñëw la ma ko tëree mën na la ñëw. da a départ. ñun ñun ñun ñu kon ñu ko fekk à 20 heures nga ñëw minuit loolu est que kooku am respect si si si si mooy Sénégalais yi est-ce que fekk la. vingt heures nga ñëw vingt trois heures trente wala wala zéro heure boobu ngeen ñëw tey vingt trant trente. est ce que mhm. Modou tey su ñëwoon. Mhm. vingt heures trente. Mhm. du problème foofu. parce que parce que vingt heures Ama Baldé ñu ngi taxaw ci buntu Sen TV ba bari fa trop su ñëwoon vingt heures trente. incha allah day dugg xam nga la tax. Hmm. dama nga xam ko. Pikine war a bàyyi suñu di di di leen collé yenn yenn étiquettes yi. fii jeunesse bi violente amul si biir Pikine fii ay doomu aadama yu respectable ñoo fi ne et respecté Pikine kilifa bu nekk génn na fi il faut que ñu tamit chaque fois ñu naan ay Pikine waay dañoo violent demi violence violence amu fa fu lu fa nekkoon ñu xam ne ne dama leen maîtriser ba ñu ñëwee oto amal ñu wër pour que su amal gën dugal ci otoom ñu ñu Pikine loolu kese la woon et puis sax dafa am amal gis nañ daal ñu leen drainer sat ful ful boobu mooy foofu ñu dem ma ñëpp nekkoon bëriwul su fekkee yéen man li ma jàpp mooy lan Modou Lo moo bëgguñ jàkkaarloo Ama te loolu day am par force wala wala wala non c'est-à-dire lan li problème bi mbër su ko jëlee da nga koy ñeme fekkee ñeme woo ko dala avance bi ñuy ñëw parce que tamit loo fi nekk sax ngay créer ay alibi amul sens. léegi ban ban alibi la fi créé. moo koy démb démb li xam li xaram naas la li gën a dee. waaw xarim Samb li mu wax dara amu ci. su papa suñu papa suñu kilifa la Modou Lo amul benn instant mu dugg ci loolu seen TV bi ñu ba nit ñibbi maa ngi dégg mu naan Modou Lo mi ci biir amaa ci biir Modou Lo mosul dugg ci biir ba ñu fi nekk yëpp dugg ci biir bu ñu ñibbee la soog a ñëw mais amul kenn koy wane benn image yu Modou Lo ak Ama Baldé ci même heure bi la ko seen TV amul. il faut aussi ne rafetul mooy Xarim Samb mag la kilifa la ku ne Modou Lo ak Ama ñi ñu ngi ci biir salle bi supporter Ama moo tax affaire amul c'est archi faux du dëgg. mais mais waxul supporter Ama moo amul. non ñu non ñu ngi koy denc supporter la personne waxul la maanaam lan la wax nee na Modou Lo mu ci biir la koy da nga gis Modou Lo ci biir la koy seen TV ñu bañ fa nekkee yow maa yow waaw ah, yaa ngi woon sama gis nga est-ce gis nga Modou Lo si mi la ko seen TV yow. plateau. si la yi gis nga ko. man ah, ci bi laa toogoon. waaw pla ama gis naa ko daal mu dugg ci biir seen TV. waaw ah. mais mais mhm. plateau bi. dama ne TV ak li ko wër. dama ne leer loo xam kenn du ko dindi. de vingt heures à vingt trois heures Modou Lo ñëwal foofu pour leer loolu moom loolu moom buñ sax buñ sax nekk di polémique de vingt heures Modou Lo ñëwul si loxo seen TV loolu amul. kon yow jàpp nga dafa ragal dafa ragal Ama moo tax mu bañ a ñëw. lan su ragal lan la xam nga man lay xalaat sax lay xalaat est su suba suba du xëy ma delloo avance. delloo avance mu ngi delloo avance. non su non fekk na ñëw jàkkaarloo mbër bi wax est-ce que nga taxawoo pour bëri. Modou bëri na ak Balla Gaye de. na ak Gris Bordeaux. lan non non yéen ñoo ci Balla Gaye la jëlee ci Balla Gaye. fekk na Gris Bordeaux biir Medina. non non attendez attendez xam nga par respect ak ñooñu si du ñu wax si ñoom du ñu wax si ñoom ñun li ñu xam ne dañu intéressé na Modou Lo am sañ-sañ ñoom jàkkaarloo am bëri moom ñu loolu lañ bëgg. non bëri moom dina ko def allah kulli aal moom dinañ bëri. man man góobu ko. xanaa da ngeen nar a dellu avance yéen ñii ngeen nar a dellu avance. ñun démb ba ñu ko fekkee vingt heures dix neuf la ñu ñëw foofu su ñu woon stade suba suba bu ñu kër Modou Lo le dix dañuy bëri léegi lu ñu ko laaj léegi lam yi mën na ko tëgg interdis. ñoom ñoo leen lool. ah non nañ na ko tëgg interdis xool na ñëw di ñëw incha allah dis moom moom yaakaar naa ne moom la leen fa dara moom bëgg leen fa dara. dama su ñëw indi dis. su ah. ñëw indi dis. Hmm. ñun ñoo fay ëpp sa waa kër mu xam lu tax ñun làmb dañ ñëw pour jël roi des dañ ñëw pour jël roi des indi ko Pikine loolu lañ bëgg te looy am incha allahu rek léegi mënoo fekk nañ dafa ragal face à ko wax. face à face kay ko ah man moo doon wax foo dégg nañ ko sot ñeme amu fa kon léegi buy ñëwati na ànd ak yow ànd ak. Lamine Lamine Lamine. Mahadara. ñu suñu équipe dañuy doxee. di yow doo ko choisir ñoo koy choisir. non man kay choisir moom. sa <laughs> problème mooy dama bëgg laa ma jàpp. problème mooy problème mooy lu ñu may teg ñu teg si may ci biir locaux yi. lañ ko def suñu trois personnes trois la ñuy dugal ci biir mais oto ama par force ñun dañ koy sécuriser non dañ ko bàyyi oto ama noonu non dañ koy su ama duggee ñu xaar ko su ko ñu àndal guy ko mu ñëw Pikine allah. a bëri na balaa balaa balaa ngeen xëy na loolu ngeen doon laaj. ma laaj dara. dégg naa am na mbër ngeen galaaj sax ñu naan. waaw dama dama ne yow wax ñu benn mbër suñu bële fa bu ñu sotti galaaj. waaw léegi léegi image jàng fi image jàng fi hmm. image jàng fi Lamine génne la ñu benn benn signature ama ba am xëpp mbër galaaj ngeen ngeen ngeen takk ñu xool loolu loolu loolu moom yóbbu naa vérifié image jàng fi yar ak teggin ci nga koy ci ama la fekk baax te xajoo xajoo xam nga loolu. ah naa ko gis naa ko ci télé am na yar wala amul yar. Ah, wax dëgg yàlla gisuma ci moom réewante na lu nga gis moom loolu ñëpp gis moom ni ko yarul. ah eh, eh, loolu tere amul caay-caay yaru mën ngaa yar ba am tuuri caay-caay. yow yow yow est-ce que caay ah, gis naa ko caay-caay gis naa caay-caay am xam yar ak dal ñu gis ci moom moom moo tax ñu soor ànd ak soo amee ñàkkul yar duñu ànd ak moom. léeg-léeg nag moom caay-caayam moom te ni may posé question tontu Lamine aw lii problème bi Modou Lo fekkee ñemul bëre na dalal avance bi mu ñu tane waaw léegi waaw léegi xam nga léegi dimanche dimanche ñu dëgg laa mu dimanche pare eh, da ngeen a maa ngi nii ñëw fi tey jour contact la gis ma kenn da tu n'as rien compris am athlète la professionnel la prenant bi yàgg prenant bi yàgg ama athlète la professionnel la xaaru bu am combat pour entraîner ama prenant bi yàgg baax na ba arbitre bi génn kon seen diggante ak Modou. waaw incha allah yéen a yàlla mën tànn fekke aussi di wax que ni képp kuy Pikinois hmm. képp kuy Pikinois ñu ngi lay woo si yar ak ci teggin nekk na ñun suñu mbër am na yar am na teggin staff bi am nañu yar am nañu teggin Pikine fii na Sénégal xam ne ay jeunes yu yaroo fi nekk jeunes responsable ñoo fi ne xam nga affaire indiscipline amu amu fi parce que làmb ji benn fan kese la su ma Modou daan wala Ama daan du génn Sénégal Sénégal lan la ñu des. sport la waaw waaw man mii am na ay xeet parcelle. waaw ñun ñëpp am nañu ay xeet parcelle parcelle parcelle mi ñëw fii affaire bi nekkul guerre combat benn fan la mais dama ko encore une fois dama koy préciser heure bu Ama di génn dem face à face day ànd ak nit ay nitam te otom nekk nekk sécurisé pour pour mu leer si ñëpp.